jàpp ne man mun naa jiite loolu moo tax ma jiitu wante ñi ñëpp ku si nekk fi ma taxaw nii mënuñ nga fa taxaw comme ni ko Ibrahima Faye waxee Ibrahima Ngom kon jàpp leen ne seen i njaboot seen i doom seeni i raq seen i jarbaat ñoom ñoo jóg pour pour dimbali leen pour dindi seen coono élection yi di ñëw nag lool foofu la amee solo benn carte rek mun na mun na changer dëkk bi hmm. yow sa carte yow mi nampal sama jarwaat bii sa carte rek mën na tax dëkk bi changé wala muy continuer donc war nga jàpp sa carte bi boo demee ba koy voté nga xoolaat bu baax ndax man damaa bëgg continuer si coono yi nga xam ne ñaar fikk at samay papa ak samay yaay ñu ngi si samay man ma nekk si samay doom damaa bëgg ñu continuer si coono yooyu wala damaa bëgg mbir mi changé nga xalaat bu baax boo xalaatee bu baax nga xool li ngay def ñun nekkuñu fi woon dara ba léegi sax nekkuñu fi dara mais ñoo ko suñu bopp ndax nit du ñëw nax la benn yoon am lu mu dig la wax la wax ju neex da nga da nga jàppale ko mu am lu mu bëgg yow defalu loolu taxoon lim la lim la tamit da nga wante bis bu ñëwaatee soxlawaat di la digat te lim la digoon bële passé defu ko digaat la nga gëm ko joxaat ko loolu yaa ko teg sa bopp mu def la ko benn yoon def ko ñaari yoon def ko ñetti yoon bëgg ko def ñeenteelu yoon parce que ñen ñetti mandat la fi def comme ni ko kii waxee léegi bëgg ñeenteelu mandat te gisuñu avancement bi nga xam ne defal nañu ko ñii ñëpp moo ñii ñëpp jóg ne nag dafa war jeex parce que yàgg nañu nax suñu waajur yi nag nañu nax suñu yaay yi nag nañu nax suñu raq yi Les.